jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne waxoon nañ leen jàppoon nañ dat bi le 20 mars yàlla suñu borom dogal kii di Gora Sock amoon blessure yàlla ak ay mbiram ñu dem ba jàpp ko le 14 août fils de Balla ak Gora Sock dañuy féliciter ñaari xale yi parce que tey bi ñu dugg see stade ñoom ñaar ku ci nekk mobilisé na waaye dugg si Gora Sock am na lu mu wane ci làmb dugg si Fils baal Balla ñu topp ko jëlee ko koñom indi ko ba arène nationale dañu koy bàyyi mu nuyoo nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu félicité ko ñu ngi lay félicité bu baax Fils de Balla. ah jërëjëf maa la fay ginnaaw bañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax. di sant sama sëriñ bu baax a baax a baax aw ma fayam sëñ Moussa Nawel maa ngi bu baax maa ngi koy bu baax sëñ Moussa Nawel ak njabootu sëñ Moussa Nawel yëpp ku ci mel ni sëñ Moussa sama sëriñ maa ngi koy sant. sëñ Xaadim sëñ Abo sëñ Tafa. sëñ Cheikh sëñ Ahma. ñoom ñëpp maa ngi leen di sant njaboot suñu Moussa yëpp maa leen di sant aw ma seen fay mention spéciale ci ñoom. di sant sama bu baax ak sama yaay. sonn nañ ci làmb ji waa amoo 456. waa Daaru Minam waa Alkayda yi. waa Guédiawaye mention spéciale waa Guédiawaye tey gis nga làmb ji tey nu mu mel. waa Guédiawaye yëpp a ko feesal. mais li ma jaaxal mooy Fils de Balla day génn di dem. c'était la première fois ma fekkee génnu Fils de Balla mais képp ku nekk ci këram day génn taxaw ci balcon bi tàllal loxo Fils de Balla loolu lan la. bilaay xaw ma sax lu ma leen defal. barki sëñ dañoo baax rek mais xaw ma sax lu ma leen defal ba ñu war a ma defal loolu. tey ba ma génn ma génnee fii tey dama góor soog daf may rey rek mais du daan daf may rey rek bu ko neexul mu dóor ma ba gaañ ma mais barki sëñ Bamba du ma daan munul ne. foo tegoon loolu. ay yow gis nga fii ba may génn nu mu demee tey pour ma génn sax problème la waaye loolu naa ko caaxaane man du ma yabu ma ñii sax. contestant bi gis naa ci ay xale yoo xam ne dañoo dawee fii ba stade. ba ñuy ñibbi si dañoo doxe stade ba fii barki sëñ Bamba aw ma seen fay booyu ndaw yi mag ñi ñii aw seen fay lépp la ñun lépp lu mu mën ak ñoom la ñoo doon defar lépp booy lépp ñoo ko def aw ma seen fay mention spéciale si dina ñëw ñu topp la noonu topp la ba ñuy dugg ci stade mu taxaw mais dama jékki-jékki ci kenn ku yor sa ci meekaay ma xool ko ci bët mu xool ma ci bët ma tegal ko ci caméra bi rek mu jooy mooy borom rasa yi lu mu tudd. Hmm? borom rasa yi ki def rasa. jooy jooy ci cim non moom avant ngay dugg ci digg géew bi mu jooy. moom a jooyloo kii kii max moom depuis ba ñu nekk xale la moom mag nag. moom mag sama mag la moom sama mag ñun ànd. mais max moom depuis ba ñu depuis ba ñu nekk xale ma takk ko. parce que sëñ Bamba lu ma am max moom dañ koy bokk. wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke Jurbel la nekk. maa ko jóge Tuubaa jël ko. ne ko ñëwoon dem Dakar ci combat bi. sëñ Bamba di ko nuyu bu baax ak jabaram ak yaayam seen waa kër. di wax Lat Diop lu ko mën a jàpp na ko jàppaat bu baax ndax lu muy sonn si Lat Diop daa doy war barki Serigne Touba Mbacke tey Lat Diop bi yëpp moo ko jënd tey. Hmm. barki Serigne Touba aw ma fayam Lat Diop. li may wax laqatu ma si dama koo fësal li ma la jub defal kenn defalu ma ko par sëñ Bamba benn politicien defalu ma ko waaw maa ngi si la jub laqatu ma si def macha allah am na solo nga ñëw gis sa adversaire Gora Sock dugg si ci làmb ji indi état de forme bu jaar yoon ànd ak ay mbokkam mhm. moment bi Gora Sock bi nga ko gisee muy lagg amoo benn tiitaange ci sa bopp barki sëñ Bamba amoo tiitaange dama xam ne bu ma simmee ko ba daw dongale ñu xam ne tey waa ji am na combat tey ba ma sumee ko ba daw dongale ñoom tey dañoo ne tey kii am na combat tey barki sëñ Bamba combat bi dañ see daj ay coono yu metti billaay dama dul gis kenn sax man rek damay taal sama ange dem entraîné du ma gis kenn lu waraloon loolu bëgg ndam man victoire dama jaral bañu ma si dara man victoire lu ma laaj dama koy def damaa jaay sama alal yëpp sama nag sama nag yi moom yëpp dama koo jaay barki Serigne Touba yow fekk nga ma fay ma yar ay nag barki Serigne Touba mbak sama bakkanu doom lépp laa jaay def ko si combat ndax bëgg ndam wóor na suñu ma xaaruma kenn ci dara. billaay walaay sama nag biyee bi ma ko jaay jaay sama scooter bu ma yoroon lépp jaay ko. lépp nga def ko ci combat lépp man ko jiili mbëri bu yowoo ñu xam loolu man victoire damaa jaral képp kuy bërëg man na koo xam man victoire damaa jaral lu mu am ak lu mu amul dama ko siy def. après nag bu ñu koy lijjanti ñu doog koo lijjanti leneen. dinañ ñëw ci loolu parce que victoire de la jaral boo ko waxee ci wàllu mystique la mais loolu dinañ ci ñëw présence su Balla Gaye 2 ci làmb ji ñu jékki-jékki rek Balla Gaye ne bërëx dugg si ci stade bi Fils de Balla moment boobu lan la gën a yëg. parce que pression am na nag. non barke Serigne Touba bés bi lu muy rëy rëy rëy dépassé wu ma boo gisee jaay yëpp maa leen wax dal leen lépp lu waaye def na ko def nañ jël suñu temps bu CNG di dagg sama xaalis bi nañ ko jël garaawul mais bés bi suñu bés la duñ ci yàkkamti dara barki yàlla lum rëy rëy rëy dépassé ma yëpp maa ngi doon wax dal leen lu mu waaye war a def na ko def barki yàlla. Balla Gaye tamit ñëw gën a yokk combat bi ampleur. Balla du ñëw tey may naan damay wane yaafus wala ñàkk jom. xalaatuma ko sax ndax ñun yarewuñu ci loolu. ñun ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ. ngir Balla Gaye ku ñu xam xam ay jàmbaar lañ ay gaynde di sant tamit Lamine Golo. barki sëñ Baam sonn na ci làmb ci trop. nee na ma demal da nga sonn rek daanu. Lamine Golo ak Mbës. Hmm. ñoom ñëpp maa leen di sant waa école du Balla waa Géejawaay yi tamit mbaru Géejawaay yi mention spéciale guy gi. Lac de Guiers 2 Alioune Seye 2 Safara Marley Pape Thiam kenn ñoom caat bu waalo waa équipe waalo yi. gaa yëpp ñëpp nañ mais dañuy ñëwaat ci combat bi ba tey dañuy résimé rek ma gis Fils de Balla nekk ci digg géew bi di def ay débat débat mais ci maykaay Gora Sock bi chaque fois mu ngi leen di tooñ mu ngi leen di cokkaas mu ngi leen di provoqué te mu ngi ci digg géew bi concentré wul sax ci Gora Sock mais mu ngi ci ci maykaay bi làmb ak loolu ñu ànd man képp ku ma jàpp ku may bëre damay ruube moom man làmb moom su ma duggee damay ruube bañu ma si man bañu ma ku CNG bu ma dagg ragaluma loolu mais moom mu war a def luñ ma digal war ma def si ñoom dama si ñoom bañu ma si dara ngeen taxaw jàkkaarloo mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu Fils de Balla moo la woon ginnaaw Gora Sock nga jàkkaarloo mën nga ñu expliquer nan ngeen bëree yéen ñaar action par action ba ndam ni mu amee. waaw ah, dañoo bëre maa moom ñu bëre ma cokkaas ko gos ma xam naa ne kii tey ñemewu ma. ma ko gis si kanam gi am naa ne kii ñemewul tey. jaay bien yëpp kay ki ngay bëreel du la. barki sëñ Bamba ma xam ne kii tey ñemewu ma ma dox si kawam dóor ko góos ñu xeex ma dóoraat ko góos mu jël ko ma daw song ko mu arriéraat mu ñëwaat si laa jàppee ngembali après ma fàqat ko muy fàqat nag bu muy rocci loxoom di dóor si laa ko fa fàqatee bu bu gëwër nomba mu arrière ma arrière deux pas mu bëgg ma plaqué mu ñëwaat yokkaat ko ak caxabal wéeru ko toog si kawam. jaxabal bi dama gis bi nga njëkkee jàpp ngemb dama nga doon tànte busulu mais Gora Sock dafa téye ci sa loxo di jox. voilà sama téere nag la téye quoi moo tax mais dama ko bëggoon tël. voilà dama ko bëggoon fàqat dóor ko tël ko wër ko nomba. loolu ci sa taatu wala si la bokk. man damaa mën a bëri jiile. c'est que gars yi dañoo jàpp ne man ab yambar laa français la loolu lañ foog. voilà mais dina leen jeexal ñoom ñëpp balaa ñoo comprendre. ngeen bëre yéen mais jël bi nga daan Gora Sock coup bi dafa am coup boo xam ne uppercut boo xamante ni Gora Sock dóor na la man dama jàpp ne uppercut boobu moo la yee ci làmb parce que mel ni ku kaaw jug compter action. uppercut boobu wax laa sant rul gis ma sama kanam nii wul fenn gisoo sama kanam gi. non non billaay defuma benn su ma jëloon coup damay arrière. barki sëñ Ba loolu gisuma coup bi yëguma sax doon na ma ko. yëgoo ko mënoo ko mën nga ko bañ a yëg. moo di boo demee ba sagg ba xëy suba. di nga sentir fu bett sama kanam gi dara méttiwu si dara amul fenn fuy métti wóor na yàlla aw ma fenn fuy métti barki yàlla man bu muy rocci du dóor xaw bu rocci ma xam ne kii rocci na golo xam si laa fàqatee ma xam naa ne dafa bëgg a dóor te ma profité bu rek moom foofu léegi nga daan Gora Sock moment bi nga daanee Gora Sock jug taxaw ñëpp gis fi sa bàll moment boobu sa xel ci lan la njëkk a dem si la ah kontaan xanaa rek ndax tey bés bi tey mënu ma woon ñàkk tey boo gisee waa Guédiawaye niñ ma ëmbee tey nuñ feesale stade bi te bés bi mënu ma woon ñàkk tey Gora Sock nee naa ko dafa may rey rek mais du ndam li. yabe moom sax waa Guédiawaye noonu. Euh, prochain adversaire Fils de Balla la. da ngay génn parcelle wala da ngay duggaat parcelle. parcelle ñu ko doon jàppale. laa bëgg ñu ñëw. Yékini Junior. kon ko fara tàpp bi dem na jëli Forza. moom mënoon na maa xaar. moom laa bëggoon gën a yàqamti ñoom seen bëri ñuy bëri daanu ma. mbiru mbapat yi ñi bëri ñoo ñëpp mën ñu maa daan. c'est que damaa comprendre seen bëri. billahi wala ti faraw. yaa ngi ci ñi ko doon jàppale ba tey. Franc Franc moo gën a neex a daan gars loolu. waaw ah, mu ngi ci contrat. lambal waaw yàlla na ko yàlla dimbali. mais maa ngi xaar Franc lu mu yàgg yàgg dañuy bëri. Hmm. lu mu yàgg yàgg dañuy bëri ma moom. lu mu yàgg yàgg dañuy bëri moom laa gënoon soxla ci combat bi. bu du bëri ma xool la man dama ko Youssou Ndour maa ko maa koy dimbali. maa koy dimbali ndax Youssou kañ ba ko kii daane ba léegi kii moo ko mujjee daan tafaatin plus de xaw ma c'est quatre ans bëri woo man ma bëri xew teg la samay victoire bu ma jëlul tamit moo xam. victoire day def loolu ah non du def loolu dañ koo liggéey rek lépp loo gis liggéey la. parce que seen maam damaa liggéey ba sama yaay sama yaay sax dafa ma doon merloo dara mooy da ngaa ci combat bi. wóor na sëñ Bamba chaque jour su ma ko waxee sax sama xol bi day bëgg a génn. dëgg la Fils de Balla gis nañ na poids. dañoo dañoo liggéey dañoo coono yu métti di sant tamit sama coach Iba Iba jàpp na ci bu baax sama coach musculation Iba jàpp na ci bu baax maa ngi sant bu baax a baax jàpp na ci làmb ji. Fils de Balla Garga 2 neexu. bëriwul ma ak moom. lu tax bëriwul a bëri. Garga 2 kañ a bëri. diggante ak Mama Lamine. moom yàlla dogal. man bëriwul man du ma bëriwaatul ku xewul ku xew laay bëril Garga 2 xewul buróom ak moom. maanaam promoteur bu ñëw bëgg a wax ci. fay 10 millions buróom ak Garga 2. Garga 2 buróom moom. Yékini bu ne bëriwul ak yow da ngay génn parcelle. jëm fa ma xooli feneen ma ñi ma soxla bëri na de. bëri na du ma tëkku benn mbër. du ma du ma tëkku benn bër benn mbër du ma ko tëkku. Hmm. du ma tëkku benn mbër ndax liñ def laa def. ëpp ñu ma victoire te maa leen gën a xew te maa leen gën a néew ay défaite hmm. maa leen gën a néew ay défaite man ñaari défaite la am te ku mbëri koo ci lim yaa ngi cee defet kon man du ma fi nekk di tëkku benn mbër di la sonal waaw mais Yékini Junior ma moom làmb la làmb moo ñu boole dama ñaan mu may ma chance mu may ma xool leneen. mais sa diggante euh, na. baax na bëriwuma ak moom. Ah, ah, attaqué woon nga ko fi. bi nga nekkee ci moom. darab lay ngéem a darab. ah. nu ma bëri mbër bi ngéem a darab. ah <laughs> du bër bëri mbër bi ngeen wala rab. ah lamb la Moussa Ndoye waaw moom lamb tuddal nii ku ma la ci tuddal. force da naan bëgg naa. su ma ne woon tey eh, Yékini Junior da nga naan. lamb la. su ma ne la Moussa Ndoye. lamb la. su ma ne la nu mu tuddati waaye. waaye déedéet bàyyi ba rek boo du ànta. lamb la. waaw da ngay bëgg jën kay bëgg bëgg naa. ñoom nekk na combat bu neex boo xamante ne askanu lamb ñëpp mënuñu ko bañ. lamb la. si bu d'accord rek moom si ñoom ñooy choisir rek bu Aziz Ndiaye nangoo Kañ nangu Matar Ndiaye nangoor man nangu naa. Hmm. ak Balla Gaye de buñ nangoor man nangu naa. ñoom bu ñu jël avance buñ la tànn. ñoom ñoom bu ñu waxal promoteur du ma ko sooy yëg sama combat bi Aziz Ndiaye la wax man lan laa si am Aziz ne ma demal koy sant bu baax jàpp na si làmb ji ak waa famille am ñëpp. Hmm. drapeau sëñ Cissé mu sëriñ Babacar si moom nga jël. sa digganteeg sëñ Cissé lan nga mën a wax drapeau bi kañ nga ko yóbbul. sëñ Cissé ku baax la nit ku baax la franchement nit ku baax la jël drapeau moom dama ci sawar loolu ndax bëggoon naa ko jël. waaw ah, di sant bu baax. dinañ ko ñu ngi ko indil drapeau bi. ah bu ma xëtee ma jël rek. ndax ins moom jeexal naa moom ku ma xët ma jël ins bi. jeexal de ins bi. ins bi moom damaa teg jeexal moom ku ma xët ma jël. bilaay actuellement nii nag sonn nga xam naa ne dinañ la bàyyi nga récupérer. na nga xiif tey añ nga. barki sëñ Bamba añuma laayal ñii. kii daf may topp. ndekki la waaye waaye ndekki sa jaarul ma si talu ma sa ndekki kon victoire rek laa doon gis ji. loolu di ko mën a def ba pare am am benn fraîcheur bi. mën a bëree am yenn. laa laa kii kii sa combat mu ne da ngaa tiit doo lekk. oral banaana laa doon lekk si stade bi benn banaana la yan bu dis moom ko jox. banaana benn banaana laa lekk. parce que damaa xiba suma biir mënu woon taxaw. mën ko yan oto ma banaana yan jox benn banaana ma lekk. mën na doo lekk après ma ko baax na. Gora Sock waxante woon nañ dara ci digg géew. non non dañoo mbalakante noonu rek. maanaam maanaam Abdou Aziz Faye maanaam ko góor yooyu. <laughs> loolu lañ leen doon mbalakante. Ah, waaw sa turu mborom. te loolu moom moo loolu daanul mbër quoi. Ah. di nuyu tamit bu baax moom nit ku baax la franchement. Hmm. sonal naa ko. damaa dem ma sama yaay sax chaque jour mu toog mu ne munoo bàyyi ki ngay sonal bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur ndax dafa yaru du turo barki sëñ Bamba maa ngi ñaanal jàmm. da ko ñaanal bu amaatee combat bu dul géej waaye yàlla am ndam. te dinaa dem ba gërëm seeti ko moom doo resool barki sëñ Bamba dinaa dem ba këram seet ko. loolu moom dina bëri nañ te dara ñaawu si. barki sëñ Bamba maa ngi koy sant bu baax bu ko neexoon mënu du bëri ak man waaw bu ko neexoon mënu du bëri ak fii sa Balla mais maa ngi koy sant bu baax a baax góor soog dinaa ñëw ba sa kër seet si la incha allah. Mhm. jërëjëf maa lay jaajëfal di nuyu ñëpp ah di nuyu Lat Diop di santaat bu baax. di sant baax ne ko ñu ngi ñëw indi drapeau bi sama père Omar Wade. mention spéciale Kandji production aw ma fayam. barki sëñ Bamba aw ma fayam. Kañ ak seen famille aw ma seen fay Tafa Kañ barki si ma amoo Bamba Kañ Laat Kañ du ne fu lañ ma yóbbu fu ne pencum Daaru Raxmaan lañ ma yóbbu luñ fa yóbbu kenn di sant waa Daaru Raxmaan yëpp barki si mbam aw ma seen fay jàpp nañ ci bu baax ci côté financier ci côté ñaan ci côté bépp jàpp nañ ci. waa famille Kañ maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax Kañ moom soo wax si moom fii laay fanaan démb démb fii la nekkoon démb. barki si maam ba trois heures matin mu ngi fii démb. billaay Kanje aw ma fayam ak Tafa Kanje ñoom Bamba ñoom ñu maa leen di sant bu baax. di sant borom daaru tamit jàpp na ci làmb ji képp kuy ñaanal fii sa bala maa lay sant bu baax waa Diouroup Daara maa lay sant bu baax waa Guinée Bissau maa leen sant bu baax di ko teg ci loxo Sarr la di sant sama gaay yi ma àndool deux mois maax ñoom ñooy fanaan sama gaay yi du ma si lim kenn nag su ma limee damay juum chaque jour maax ñoom ñooy fanaan non waa Daaru Minam maa di sant nuyoo bi di ko teg si président fan si club bi grâce mu jàllale ko Mouh Moun Mbacke ak Matar Lam waa Alkayda yi maa leen di sant bu baax amoo 4 5 6 AKD maa leen di sant bu baax waa Guédiawaye ñëpp maa di sant di sant jàpp na ci làmb ji bu baax Bousse jënd na billet yi jàpp na si. yàlla na jàmmam yàgg. mais li ma fàtte woon mooy open press fi lan moo tax nga doon ko defee fii déplacé ko yóbbu ko fële. man nekkatuma doomu amoo carte rek. déet du loolu. parce que du da ngaa njort ni dañoo miine fii wala. man góor fu mu miine ma génn feneen góor fu mu def góor lu ma def yëpp dañ may woo ne ma góor def na lii ak lii. billaay. man sama sëriñ ñoom may woo ma lii ak lii moytul fii ak fii. yaa ngi koy dama koy moytu bu baax. ndax làmb ji dañoo ñoroon. gàllaaj feeñ na tey ci làmb. Ah, ñi seetaan kay ñooy xool. man daal li ma war laa def. man daal gis naa ne Gora ñëwul man. gis naa loolu Gora Sock ñëw à buñ ku ñëwul dina dóor. bon mbër mun na ñàkk a ñëw. ku ñëwul dina dóor mystiquement Gora Sock ku ñëwul ku ñëwul doo dóor. Eh, dóor doomu Iperkin. waaw ah na loolu day bëri xale rek nag. loolu la rek day bëri xale. mystique jàpp la. non wax ma si mystique nag. li ma def si xaal li ma def si li ma def si suñu ma jàppee ci musique wax dëgg na yàlla mat wax sama sëriñ nag. Gora bu génnee suba def sorti na mystique da koo jàpp di nga nangu. ah moom la xam moom loolu wax ana mbabar mbabar yi woo mbabar mbabar yi doomu mbabar la ñu ko. dañ koo fay dañ koo fay fay ma kañ ma ànd samay mbok samay xarit ak waa Géejawaay moom mu ànd ak waa Mbobar waa Cambérène ak waa kon kañ ngir yàlla rek bu wax moom kenn dañ koo jàpp si gàllaaj lam moom gàllaaj feeñ fa bëre moo fa feeñ ak doole moo fa feeñ amul leneen. yow laa koy laaj. nañ ma joxaat beneen punkal nga xam ne am naa doole. waaw. maa lay jaajëfal bu baax. sant bu baax di sant ñëpp di sant sama famille ñëpp bu baax ak samay jabar maa ngi sant bu baax sama jabar ak seen waa famille yaayam. Ah. samay sama jabar laa wax yéen bon sama jabar laa wax. Ah. sama jabar laa wax di sant tamit Masada bu baax. sonn na ci làmb ji di sant tamit turandoo Masada Ndiaye. di ko bu baax a baax a baax. di sant ñëpp Ali Moungheul maa koy sant bu baax sama Moungheul bu ñaawul maa ngi koy sant bu baax di sant tamit Mabdou maa ngi koy sant bu baax borom parcelle Mabdou maa ngi koy sant bu baax. maa ngi koy sant bu baax ca sonn na ci làmb ji Moussa Bokar Thiam maire Wara Sogi jàpp na si làmb ji maa ngi koy sant bu baax eh, Ibou di sant tamit sama papa mama maa koy sant bu baax papa mama sant naa bu baax a baax bàyyiwuma tamit sant tamit ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gën di sant tamit Baye Sidi sama gaay yëpp sama gaay yëpp maa leen sant bàyyi ma kenn Mbodj maa lay sant bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Guédiawaye jërëjëf mbokk yi dégg ngeen Fils de Balla sant na ay mbokkam sant na ñëpp ñoo xamante ne jàpp nañ ci làmb ñaari xale yi tey li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñuy encouragé bu baax góor a Sock di ko wax ne ñaari ndam mooy dugg waaye benn mooy génn yàlla moo tuddoon ni tey Fils de Balla day am ndam ci kawam na gën a respecté waat ay entraînement nekkaat ci contact gi nekkaat ci li mu war a nekk yàlla baax na ñu leen di jaaj jaajëfal bu baax mbokk yi di leen jox di daje ba ëllëg incha allah. waa États-Unis bu baax bas lay kooku maa moom depuis premier combat la ñu ànd. sama pro a maa ngi koy sant ak an jàpp nañ ci bu baax njaga borom parcelle Abdou Ndiaye Mabdou sonn na ci làmb ji waa parcelle tey wax nañ ko lu ne mais Mabdou max moom kóllëre nekkul xaalis moo ñu boole max moom lu ma xewle day ñëw moom lu ma xewle lu ma lu ma xewle damay dem pour waa parcelle xamee ko noonu ndax tey gis naa ay mbër talfa di ko saaga lu ko wax lu ne Abdou Ndiaye parcelle la dëkk mais waruñu ko saaga ndax moom kóllëre moo ñu boole kóllëre voilà lamb la woon rek day jeex waaw di sant ñëpp bàyyiwuma kenn waa États-Unis waa diaspora bi maa leen sant bu baax Balla Portugal Balla Gaye maa ngi koy sant bu baax borom Portugal maa ngi koy sant bu baax di sant waa diaspora bi ñëpp ñëpp ma leen sant bàyyiwuma kenn. Hmm. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax.